doon feccal ay def nii si benn son lay fecc njàpp benn son lay fecc loo xam ne da nga doon fecc ay 14 morceaux li ngay dem ba fecc benn son xoolaatal sa bopp yaa ngi arrière normal dellu ci ci nga nekkoon man sama xarit nga dama lay conseillé dellu ci li nga nekkoon dellu ci fa nga jóge loolu nga koy wax quoi loolu laa lay conseillé man soxoruma iñaanuma xamoo li su ma demee bay soxor yàlla war na maa rey parce que yàlla gi may teral ci lépp rek ci àddina yàlla nag su ma demee ba soxor billaahi wallaahi yal na ma yàlla génn ci ñàkk gi ma dellu woon aw ma daraay soxor ci àddina mais dama koy dimbali pour mu xam ne àddina yamul benn jour àddina jeexagul booy dem ci ab label te xam naa ramadan niñ mel de dañ koy accueillir un mois lañ koy accueillir njàpp lu mu wax dañ daan njàpp dañ daan gongo la un mois bu jeexee boo mu change njàpp ci suuf lay toog di sawali waaye daan koy jàpp wala mu jéede léegi laa ko wax ok mais yaa ngi yàq léegi salaamaaleykum gars salaamaaleykum gars Pawlish mbay merci beaucoup je suis avec toi Lamine Ballago noppalul noppalul ngir yàlla yow da ngay te ñun li ñuy wax dañu ko maîtriser xam ko amul ku bokk Ramdan ñu woo naan ñu nii nga waxee nee nga waxee Pawlish moo la gën a jege Wally moom la Wally gën a xam moom la Wally àndal moom la defandoo lépp lépp kon tuuti nga pour jaxase ko Wally naan ay waaw da ngeen fay nekk ñu leen may oto kan moo la wax Pawlish Mbaye oto bi dawal Wally ko may Pawlish dafa diñ de dafa diñ dafa gëm boppam barke Serigne Babacar yi am fulla am fayda nitu dëggu la moo tax mu neex ma man dëgg laay wax kenn gënu ñoo bëgg waali am na saytaane yu naan aadama ci saaga waali la jëm xool ko ma ngay ñëw loolu du ma sa am ci àdduna bi waali du ko bëgg te yàlla tax waali moo la gën a xam ni ma mel ci te man xam naa ni mu mel man yaa ngi dëgg xam naa lépp moom xam na lépp ñun booy duñu ay foo ñun du duñu nekk di wax ci suuf li ni ngawti ngawti suuf moom la ni nodd ca kaw amul ko bokk ram daan di ma woo man wala mu woo police naan ko ni nga waxee di noonu amul parce que lu nu wax xam nañ ko te dañu ko maîtriser dama ne la njàpp du gor njàpp gorewul du gor dem bu mu dem dafa ñaaw dafa salte dafa tilim kenn waxu bu mu ñëw ci waal yi déedéet mais dama ne li mu def du yëfu gor yëfu ko goree di la parce que man damaa fekk démb sa waay ram daan wax jee fi ne nii rek gars yi dañuy sàmbalaa rek mais ñun xam nañ la fa nekk da ngeen a xamul rek yéen ñun duñu waxantu lépp lu nu wax am na fu ñu ko teg yéen ñi nga xamante ni ay faramaareen yu ndaw génn ay public yoo xam ne waale xamu leen waale du leen dégg waale xamu leen waale du leen way waale faalewu leen yëgul na sax yéen a ngi wax yéen ay génn di ngawti ngawti ñun bu nu waxee ñaata personne ñoo koy dégg ci àdduna bi bu nu ŋaayee sunu gémmiñ gi fan la jëm ci àdduna bi lépp lu nu wax xam nañ ko ni da gore nga diiñ Pawlish Mbaye ku am fula la ku diiñ la ku gore la Wally Seck barke Serigne Babacar Sy boobu loolu xaalis nga xam Wally bu doonoon pauvre nga xool ñi ko bëgg ñu ko bañ foofu nga koy xamee ñun Wally defu ñu dara soxla soxlawun daraam bëgguñu daraam du oto du kër du xaalis du tus dañ koo bëgg te yàlla tax di ko jàppale lépp ñoo koy defal suñu bopp man bopp lépp maa koy defal sama bopp sama bat si kaw hôtel lu mu seet seet seet seet seet seet seet bu fayee 4000 euros bu ma neexee fay 5000 euros bu fayee 5000 euros bu ma neexee fay 3000 euros dama wax rek exemple laa leen di jox da ngeen a xamul nag mais ña xam bëri na wax jee bari rek dama ne la lii lépp kenn war waralu ko lu dul ñu salte ñi ñëw bi ramdaan tas ramdaan di guerre guerre bu salte di guerre guerre bu salte bu tilim bu ñaaw di faj seen mer mooy ñoom ñooy def lii lii lépp ñoo koy collaboré dëgg la nag lu nu def waali da ci ànd parce que waali moom lu mu lu ko neexul du am waali bu ne kenn du yëg seen bi kenn du yëg waali bu ne lii du am lii du am léegi bu loolu amee waali accepté ko rek moom la nee parce que Wally moom yaa ngi dégg lu am mu mu mu réagir lu lu lu ko neex rek lu ko neex na neex moo tax kenn du ko ci mën a génnee mais ñun Wally duñ ko manqué de respect duñ ko saaga dara tax ñu bàyyi ko mais njàpp du gor du gor jaam la point. ko yow bëggoo jàpp dem parce que su moom léegi mu fay day fay far fortu non day fay dama lay wax lu ñëwagul day fay njàpp day fay far day fay. Eh. parce que mënul apporter nan ma dara. ndar naa ne sar la muy waali mooy sar bi tey bu doon njàpp doon fekk at day tukki ñëpp du yux bu waali defee benn benn chorégraphe day njàpp day xewi parce que waali mooy sar ramadan benn sar la muy waali tey boo nekkee ci ab label nekk fay saar ñëpp bëgg la da ngay toog foofu yàlla day ñëw njàpp xale bu ndaw la tey joobane xale la lu muy yàqam di di parce que mi mi mi mais est-ce que du wërsëgam foofu la foo taag foo toog yàlla fekk la fa si soo ànd ak ngor wërsëg ngor lay àndal tey boo jàppee ni foofu sa wërsëgam nekk non gëm naa ni ko am parce que ngor la yàlla def ngor mooy lépp ci àddina tey wor baaxul tas yaakaar baax xoolal si di daanam